alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah seydina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa ridwanillahi taala anil qatmi wal kadmi mu middu rijalullahi min qabli kawnihim mu middun wal xayru mustamiddun wa man yaqis amiran li maxmuuri alayhi qitaahu kullu sirril fil baraya maddahu siru tijaani سيدي ومولاي سيدي أحمد ابن محمد التجاني رضي الله عنه ورقم الله عن أبي الفيودات والبركة سعادة الأنام مولانا شيخ الإسلام الهادي إبراهيم باي رضي الله عنه mbokki julliti mbokki ci yàlla gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ngërmandeg yàlla wàcc nu sëriñ seydi wa moolaaya seydi ahmad ibnu muhammad attijaani radiallahu di ñaanal seen xalifa ñoom ñaar di maulana cheikh al islam El Hadji Ibrahima Baye radiyallahu anhu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel beneen yoon ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamante ne ñooy mbokki waa Senewood TV euh, internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax di leen wàccee seen wàccuwaay euh, di wax rek ala kulli xaalin beneen yoon mbokk yi léegi mën nañ ñu suivre fi nga xamante ne mooy si sunu seen bii di Senewood TV. Eh, ci li nga xamante ne mooy bind ak Maulana Cheikh Ibrahim ci ki nga xamante ne mooy soppeem bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte Baay waxoon na inna ni qabla al baraya hubbuhu wa suxlul jinaani man Baay laata amak dara man ci laay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa akli wa sarabi wa huwa diini wa jinaani waaye di am ak ay waxtaan ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mi nga xamante ne Baay waxoon na mu ne hubbu Cheikh Tidiane xarata qalbi sama xol bi ah, dara nekk ci lu dul mbëggeelu Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kon ñu ngi leen ci xaar fii nga xamante ne mooy suñu seen leader bi di nga xamante ne mooy Senewood TV dinañ ci amal tamit ay waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci jullit yi ci mbooleem bunt yi nga xamante ne tey ñoo nekk ci Sénégal ci tarixatu ya di waa kër Mam Maodo Malick radiyallahu anhu dinañ ko amale ay waxtaan aussi ci li nga xamante ne mi ngi jëm ci faydatu tijaniya Maulana Cheikh Ibrahim dinañ am ay waxtaan aussi jëmale ko ci li nga xamante ne mooy suñu mbokk murid yi waa kër Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul waaye aussi dinañ fi dalal ñi nga xamante ne ay tuddkat yàlla lañ euh, fii nga xamante ne tey mooy sunu seen leader bi di Senewood TV kon incha allahu rabbi ñu ngi leen ci xaar yéen ñëpp dem leen ngeen abonné ngeen activer cloche bi incha allah dara bañ leen rëccati ci li nga xamante ne moom mooy euh, lii nga xamante ne mooy jëmale kanam ala kulli haalin waaye aussi tamit li nga xamante ne moo jëm ci li nga xamante ne ñun ñu ngi ci di ko yëngatu te ñu bëri commencé nañu ñu ràññee mooy suñu wàllu liggéey ci wàllu asraar bi kon képp koo xamante ne aussi da nga am ay soxla yu jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy sa wàllu wér-gi-yaram ci wàllu sangat ci wàllu li nga xamante ne moom mooy listixaar waaye ci wàllu li nga xamante ne aussi moom mooy defar kaaraange ja euh, doomu adama bi incha allahu rabbi yenn saa dinañ ci amal ay waxtaan incha allahu rabbi képp koo xamante ne rek bëgg nañ si jot ci loolu euh, numéro baa ngi noonu 77 391 85 10 77 391 85 10. di santaat yàlla beneen yoon di waxtaan benn wax di wax benn wax bi nga xamante ne aussi dafay dem ci ndaw ñi euh, ndaxte Baye waxoon na mu ne. alawtu biha radairati wa innani alawtu lxura walmutlahal bal jibala aruumu li dal baaridu nusrati diinihi wa ubrisu lil jiilil jadidil wisala bàyyi mu ne man bàyyi ñas eh, dugg naa fu ne jaar naa ci jéeri ji jaar naa ci suuf si jaar naa fu ne waaye ngir sakku ngir man rek borom bi waaye ngir indil ndaw ñi nga xamante ne mooy nouvelle génération bi ay repère bu jamono lëndëmee ñu xam fan la ñuy teg seen tànk kon dëgg-dëgg Baye mi ngi wax ak jeunesse bi moo tax boo delloo ci waxam ja dafay wax mu ne l'avenir de toute nation mu ne repose sur sa jeunesse waaye daf ci teg mu ne pas n'importe quelle jeunesse mu ne il s'agit d'une jeunesse douée de caractère noble euh, d'ambition élevée et cetera mu ne jeunesse la bi nga xamante ne dañoo am lu ñu bëgg xam fan la ñu war a teg seen tànk mu ne nag jeunesse boo xamante ne xamoo fi nga war a teg sa tànk amoo bëgg-bëgg amoo ambition bi nga xamante ne élevée lay doon mu ne c'est comme un arbre stérile arbre garab bi nga xamante ne amul dara luy jëriñ ci moom kon nit ki war na am vision bi nga xamante ne war na fa mën a teg tànkam ndax jamono mi ngi commencé nekk jamono joo xamante ne léegi kenn xamatul na lañ ko war a mën a tuddee waaye lan mooy dimbali jaam ni mooy ñu delluwaat ci yàlla euh, lan mooy dimbali jaam ñi ñu delluwaat ci yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte bay waxoon na mu ne ayaa naasu xallu hasla waqfu muhammadan wa illaa taraw ni dahra jadda baraayi Baay mu ne hey yéen nit ñi euh, mu ne xallu waqf xallu hasla waqfu muhammadan mu ne na ngeen fuglu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen bàyyi caaxaan te ngeen daw fukk lu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa illa bu ngeen deful loolu nag mu ne nag taraw nii dëxra jadda baraa yi da ngeen ma gis nag man bàyyi ñes ma tabe si di leen dagg benn par benn kon li war ndaw ñi mooy ñu daw dem uti ji xam-xam li war ndaw ñi mooy ñu yokk seen ittee euh, ba na kawe ndax Baye daan na wax mu ne kawel leen yitte yi dara jeexul si mangisinu yàlla yi mu ne nag kon lépp rek ñu ko amee ci yitte kon nañu nammat li nga xamante ne mooy yittey daw uti ji xam-xam waaye am yitte daw li nga xamante ne mooy soobu ci yoon bi nga xamante ne dëgg-dëgg mooy dimbali jàmm bi te mooy ñu delluwaat ci yàlla xam na ne yàlla rek moo fi ne yàlla la ñu war a topp moom la ñu war a fuglu moom la ñu war a bëgg ci suñu mboolem yëngatu ci suñu mboolem yitte kon salaamaaleykum wa rahmatullah